صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق jikko ji kon ni ko jàngee ñun ñëpp ci sootu kër fii dañuy fàttaliyante rek kenn ku ci nekk la ñuy wax ne yaa ñu gën a xam waaye ñuy dox di dem di dox di dem di dox di dem di dox di dem ba àgg ci xadir fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilman bañ àgg fekk fekk fa benn jàmm boo xam ne yàlla jox na ko ci yërmandeem ba pare xamal ko nag wa allamnaahu min ladunnaa ilman kon yëf yaa ngi foofu de ilmu ladunni ma ngi noonu da nga koy am te doo ko doo jaar ci benn nit yàlla moo la koy joxal boppam min ladunnaa ilman alquran bàyyi na pour fépp la pour faw la pour ñëpp la du du du premier mukk ba léegi ko jaar fa gaa yi jaaroon yàlla man laa cëral kon yàlla yàlla suuf ci yoonu mag ñi ba yàlla yonent yàlla ko ah, yonent yàlla euh, xadir kon xadir ne ko mënoo ànd ak man ndax yow fi nga tol fi nga nekk ak man fi ma nekk bokkut kon mbir yaa ngi noonu de fi nga nekk ak fi waa ji nekk bokkut kon bul weddi dara yow bul weddi dara mu ne ko ndax dama laa bëgg a topp ala an tuallimani mimma ullimta rushdan dama laa bëgg topp nga xamal ma la ci la yàlla xamal am njub nga xamal ma kon topp toppee noonu foog nga am ko topp Anis Mansour bu Égypte borom borom xam-xam bu mag la mu ne soo doomu adama yàlla ko bind ci toppee ba nga xam ne su amul kon topp dana ette benn xeer topp ko kon foog nga am koo topp loo weddi weddi weddi weddi rek da nga am ko topp kon ñun yàlla yàlla suuf ci yoonu mag ñi yoon wi nga xam ne ci la maam alaa Abdoulaye wala balaa maam alaaji Abdoulaye Cheikh Oudou Diagne ak leneen ñi leen waaye gannaaw ñun ñoo ñuy Sénégal balaa yoon bi nga xam ne si na Cheikh Ahmad Tidiane moom la soobu woon yoon moom alaaji Abdoulaye soobu ci alaaji maam alaaji Malick soobu ci maam Serigne Touba soobu ci ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne kenn xamu leen dégg nga yoon woowu yoon woowu baax woowu boo ci nekkee baax na kon yàlla yàlla sóob ci seen yoon bi e bi nag moom mooy kado boo xam ne moom la yàlla moom la moom la moom kado boo xam ne moom nañ yàlla may muy cadeau boo xam ne ñun ñëpp ko bokk te mooy caabi yërmande te mooy caabi barke te mooy caabi texe ku bëgg barke ak bëgg yërmande nga yo topp yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax ne su ngeen gisee nit muy nit ku baax yàlla may ko xikma yàlla may ko xikma may ko ak fasaa jub ak wala na addis boo waxee rek na ngeen ko topp kon toppee nga noonu topp moom ta ñàkk euh, ñu ngi ñaanal yàlla moo mboolem ay saabaam saabaam yi nga xam ne dañoo jaay seen bakkan jaay seen alal jaay lañ gën a bëgg lépp jox ko lislaam pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën a àggaleet oote bi yàlla wax na ci alquran inna la ishtara min almuminina anfusahum kon loolu ba léegi nag mu ngi dox waaw ba léegi mu ngi dox moo tax nga dégg bàyyi wax ci rabbal ibadi baaw nufuusa samma wal amwala waaw jaay nañ seen alal jaay nañ seen bakkan yi jaay nañ seen alali yi pour ànd ak man yàlla yaa tas ci barke mbooloo moomu waaye di ñaanal yàlla Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ak tamit ki nga xam ne moo doon mbóotam te mooy Mawla mooy Mawlana Cheikh Ibrahima di borom barab bi ñu ngi koy ñaanal yàlla moom tamit yàlla dolli leeram dolli dolli barke bi gannaaw ak mbooleem ñi nga xam ne nag ñoo toppoon ñoo ko toppoon ñoo ko toppoon ca commencement ba ba nga xamee ne yëf boobu yëf yi neexut waaw ja jamonoy Kossy Dia nga xam boobu dara yombut mag ñi nga xam ne ñoo toppoon na Cheikh Ibrahima ñoom tamit yàlla yàlla yokk seen leer mbokk yi ñu leen di bu baax di leen ndokkeel di ñaan yàlla e, maanaam yàlla ko yàlla diri ay sembaanam ci ñun ñëpp yàlla mën na ko yàlla yàlla def loolu. ci mbiram Cheikh nag sëriñ sëriñi tarbiya ak muridu sadiq loolu wax ci xam naa ñun sax tuuti nañ ci tuuti nañ lool ci wax ci loolu waaye daal xam naa ne soo cheikhu tarbiya moom boo ko bëggee xam le mooy koo xam ne dafay jàpp sa roxo di la di la tarbiya di la tarbiya di la la yaa sa borom ngoog mooy ki nga xam ne moo lay jubal waaye nag am na ay critères yoo xam ne dafay nekk ci moom la budd mu nekk ci moom maay sëriñ bi rek noonu rek maay sëriñ bi rek rek rek noonu rek doyut sëriñ duñ ko topp ci ay colaay duñ ko topp ci ay waruwaay duñ ko topp ci ay nekkuwaay loolu du nattukaay bi waaw loolu du nattukaay sëriñ bi euh, Cheikh Sakhir papaam daan na wax ne sëriñ sëriñam daana ko wax ne sëñ Abibu Kan du daana ko wax ne bu fekkee ne loolu ngay nawee sa sëriñ bi booy boo nga dem jébbalu ci pôl waaw bu dee sëriñ bi mu ne koy nawee daal mooy waruwaay yenn yeeg yenn yi mazahir yi mu ne loolu moom bay woo nga dem jébalu ji Paul parce que Paul moo ko gën a bëri le Paul mooy tubaab bi Paul moo ko gën a bëri le kon loolu du nattukaay bi liñ soxla mooy ruux yi defaru kon sëriñ bi dafa nekk koo xam ne dafay am xam-xam dafay am te tamit dafa war a ragal yàlla dafay ragal yàlla bu wéetee ak bu wéetali ko lépp dafay ragal yàlla sëriñ ci maanaam mënum gën a gàttee comme ni ko bàyyi tëralee leerale mooy koo xam ne pare nga ci sa bopp koo xam ne pare nga ci sa bopp boo defee nit ñi nag door a ñëw ci yow waaye ku parewul ci boppam nag samp ne da ngay nekk sëriñ seen na Cheikh Sidna Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ne na loolu ku ko def da nga alko mu ne ku def loolu da nga alko kon sëriñ mooy koo xam ne pare nga ci boppam pare na ci boppam ba pare donn yonentu bi nag sallallahu alayhi ci jikkoom yi rafet ya donn ko ci jikkoom yi rafet ya ci sunnaam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lu mat a taxaw la lu mat a taxaw la sunna yi sunna yi doo ne mooy julli fara julli farataay julli nangam la sunna yi nangam la la nangam boo jullee suba bala ngaa julli suba nga naafila boo jullee bala ngaa julli tisbaar nga naafila wala boo jullee bu yor yoree nga naafila bala ngaa julli tisbaar nga naafila bala ngaa jul bala boo jullee pare nga naafila bala ngaa julli takkusaan nga naafila ba gexe noonu timis noonu gexe noonu ay sunna lañ de waaye sunna bi tax ñuy wax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy da lewet dangay lewet da ngay am yërmande da ngay lewet da ngay am yërmande comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam meloon nit ñëw ci moom duxsu di koy yoot ne yonentu nga ne moom du wax yonentu Muhammad lay wax ndax bu fekkoon yonentu la du wax bu fekkoon kon euh, du dem du ko jéem a rey waaye Muhammad nga ne yàlla ma yàlla rey su ma ko reyut yàlla ma yàlla rey suma ko reyut muy waaf di watatu di watatu di watatu ba àgg ci yonent bi fekk yonent bi mu ngi teg jaasim ni waaj a jël jaasi ji yëkkati ko ne ko ne yonent bi sallallahu alayhi wa kan mooy dox suma diggante ak yow yonent bi ne ko yàlla ñu ne kaddu gi am siru kaddu yonent mënu ta ñàkk siru jaasi ja daanu ñu ne déedéet jibril la ko ba ma waaye kaddu yonent bi siru la kan may dox suma diggante ak yow mu ne ko yàlla jaas yi yorot waa ji rek karakare yonent bi jóg sol mbubbam ba pare te jaas ji ne ko kana may dox sama diggante ak yow yow mu ne kana kana sa mbaax rek kana nga sa mbaax rek wala mu ne déedéet kun xayra axisin gënal nekkal ki gën ki jël ki téewoon jaas ji man damaa téewoon jaas ji bugg laa rey léegi yow gën ma baaxal ma yonent bi ne ko maa ayoo mbaax sànni jaas ji ne ko demal bu doon ñun ñun bu doon ñun dañ lay jéem a rek ñun ñun ku la xusi nga xokk ko ñun ci loolu lañ nekk ñun loolu waaye daf nga fayu loolu waaye def nga fay mbir yi du noonu boo bëggee cër da danga da nga da nga da nga jéggale bu baax a baax a baax mag ñi dañoo wax ne ku bëgg euh, kuy tooñ du mucc mukk waaye koy faytu du të kuy tooñ du mucc waaye koy fay du të kuy tooñ du muy mucce euh, tanaamu aynaka wal mazluma muntabihun yaddu alayka wa aynullahi lam tanami yaa ngi nelaw tooñ waaje ba pare yàq nga dossier ma bind dossier ba sotti ñu déposé ko ci ministère bi wala ñu déposé ko présidence wala ñu déposé ci gouverneur bi wala fu demee noonu nga doxee waa yàq ko nga yàq ko yàq nangam téeméer ni seen soxla nga xam ne kooku ñu bëree bëree bëree bëri luy añee ci moom di reeree ci moom muy fajal al soxla ñu bëree bëree bëree bëri nga yàq ko loolu lu ko gën a bon amut loolu lu ko gën a bon amut dégg kon kooku nag bu demee ba wéet bu toogee ba diggu guddi ba nga xam ne heure nga xam ne kenn ku nekk biir nga ak soppe ñe naan je t'aime noonu la koy gars yi waxee ñe naan ñu je t'aime man yow rek laa bëgg yow rek laa bëgg je t'aime yow rek laa bëgg yaay sama ñàkk uti ko yaay sama nangam yaay sama nangam yaay sama nangam waa ji toog moom jàpp jublu xibla di ñaan yàlla inna fulaan aadaani fantaqim minhu diw moom a tooñ yow yàlla yàlla nga ma fayul ci moom loolu lu ko gën a garaaw kon tooñ nañ ko moytundi ko waaye tamit buñ la tooñee tamit del bale waaw buñ la tooñee del bale kon shamaa'ilu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu ko jeexal loolu la ñu wax ne loolu la yàlla wax ne na ngeen roy yonantu bi yonantu bi noonu lañ koy royee waaye du na yenn yi yenn yi di dox ndànk di yoot di nangam yooyu du roy yonantu yo roy yonantu mooy ngay joxe li nga am nga di ko joxe joxe ba doo doo dese dara noonu la ñuy royee yonantu te ku la tooñ nga baal ko noonu la ñuy royee yonantu ku la xañ nga jox ko noonu la ñuy tere la ñuy royee yonantu nañ ko bakkal bu baax a baax a baax noonu la ñuy royee yonantu sallallahu alayhi wa sallam nit ñëw na ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka daf koo poñe yonantu bi wax nañ mu ngi sol bur euh, euh, burdu najraani yi am na benn abbaay la boo xam ne dafa tal ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam nooyee waa ji doxee gannaaw xëcc ko ba ba boo baatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xonq yonent bu gestoo daal di koy muñ daal di muñ ko ne ko lan la mu ne ko jox ma ci alal yàlla ji jox ma jox ma ah de ba doon man bu sax dootu ko nettali dootu ko nettali de waaye yonent bi jox leen ko dañ ko jox jox leen ko kon mbiri mbiri mbiri lu mat a bàqel la ñëw na saaba ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi def ko nu mel noonu def ko nu mel noonu xas yonent bi wax ko lu nekk yonent bi jox ko mu ne ko jox ma ci xaalis bi jox ma ci li nga yor yonent bi jox te bi mu koy saaga ak di saaga yonent boobu yi saabaa ya nga toog di xas yonent bi ma jox ma bul saabaa toog yonent bi daal dugg néegam jox ko ba mu ne ko doy na mu ne ko doyut de yonent bi joxaat ko mu ne ko doy na mu ne ko waaw yonent bi ne ko nag nañ dem ci taalibe yi ni nga ma doon wax li wax ji bon ji ma doon wax nii nga dem waxaat leneen ndax ñoom dañ lay mere seetal loolu kon moo tax nga dégg bàyyi ne yonent bi moom xuloo nekkul ci moom luy fii xuloo ci nit yàlla daf ko dindi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu nañ ci roy yonent bi ku roy yonent ko royee noonu loolu mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga roy ko ci jikko te tam dëggu ci yow ndax loolu la yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee ci ñun moo ko ñun liñ dox suñu diggante moom mooy moom mooy yonent bi moom mooy jëlee ci pay yàlla bi indi ñun ñu roy lu rek lañ lu la lu rek la ut ak ñun loolu rek rek rek la ñun moom mooy jëlee ci pay yàlla bi indil ñu ñu roy waaye li ko li mu war li muy def ci lu baax ni muy jaamoo yàlla ni muy jàngee alquran ni muy defee nangam ni muy defee nangam lépp ni mu ko waree lañu waree ñun ñëpp waaw kon dañ ko war a roy di bakkal yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam euh, loolu nag moom nga gis Mawlana Cheikh Ibrahima di wax ne ida saara xayru naasi surtout war a aw ki gën ci nit ñi su doxee ma topp ci kawam su doxee ma topp ci kawam du ne bu doxee bu doxee dafay jog di dox muy dox topp déedéet maanaam jikko yu yonent bi yore loolu lay yore ndey Aysa biñ ko laajee luy jikko yu yonent bi daf ne jikkoom mooy Qur'an kon jikko jooy rek la dégg nga jikko jooy rek mooy isa saara xayru naasi surtout war a aw moo tax ga dégg moo ci seerul xal bi walaw sawaru ne fi l xaqiqat lam yaraw siwa shaxsi mahbubin bihi atamatta'u man buñ ma photo woon dëgg-dëgg photo doo gis dara lu may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man rek loolu rek ngay gis moom nag Mawlana Cheikh Ibrahima nee nañu cëriñ gi nag cëriñ wax na ci ba tey wax na ci ba li may wax du samay waxee bopp waaw du samay waxee bopp ndax jamono bi nag ba nga xamee ne wax mag ñi dañuy wax ne ba nga xamee ne yàlla am na nijaay yoon wi dafa am nijaay am maam am nijaay am rakk am nangam rek neexut a waxati waaye kuy waxte yàlla tax rek yàlla rek tax yàlla bàyyi mu ne mu sëriñ moom du lu ñuy donn da ngay góorgóorlu da ngay góorgóorlu mën ngaa doonu sëriñ bi nag waaw mën ngaa doonu sëriñ bi mën ngaa doonu sëriñ bi mën ngaa góorgóorlu futteeku jaay sa taali sa doom jëndee ko taalibe te bàyyi loolu wax na ci lu bare bare bare bare bare waaye nag boo ewee ci loolu nag mbo woo ma bàyyi rek de sëriñ bu nekk laa wax man waxuma bàyyi rek de boo emee ci loolu rek mooy suma baay la ngay donn ci moom mooy da nga mën ngaa doon dàll wa de góor ga mu ne mën ngaa doon dàll wa de mën ngaa doon mbubb ma de mën ngaa doon nanga waaye cër ba moom cër ba moom la koy tax a doon foog da nga góorgóorlu bu ngeen delloo ci bu ngeen delloo ci mbind bàyyi loolu yëpp nga foofu noonu wax ne bàyyi daal di wax ne ci xaqi taalibe nag ci xaqi dañ koy gàttal rek ndax jotaay bi dafay may ragal mu mu mu guddi mu guddi bàyyi mu ne nag yow taalibe bi yow nit ki booy ut sëriñ na nga ut sëriñ boo xam ne cheikhul murabbi boo xam ne ni mu xamee zahir noo lay xamee baatin te nekk sëriñ boo xam ne sëriñ mën a laayee biir la wax ju jafee gi noonu sëriñ bu laa biir wax ju foofu la nekk de ba pare am xam maarifatu billaahi ba pare nekk njiit ba pare nekk ko mën na laayee biir nit critères yooyu moo war a nekk ci yow bu ko defee ñu mën laa topp da ngay nekk koo xam ne dangay xam zahir ni nga xamee baatin ba pare nekk nit koo xam ne da ngay mën a laayee biir nit dangay nekk koo xam ne tamit sa maarifatu bi dafa do baax xam nga ko xam nga yàlla bu baax ba pare nekk njiit loo xam ne njiit lu baax ngay doon waaye bul nekk nag njiit loo xam ne bul nekk njiit loo xam ne nag comme ni waxkat bi wax njiit mu njiit boo xam ne ko la bu ko nekk yàlla fa yaatu yàlla fa yaatu de mbëtt boo ko jiitoo mu ne yaa ngi lekk sama socce di soo wanee soo soo su la jiitoo mu ne yaa ngi may yaa dëgg sama genn bi kon foo jëm kon foo jëm kon bul ànd sëriñ bu mel noonu da ngay ànd ak sëriñ boo xam ne soxlawut ci yow dara lu ma yàlla rek soxlawut ci yow dara dara nag a ah, Cheikh Sakhir ñu ngi lay ñu ngi lay euh, balu sax lii may wax nii lii may wax nii mu ngi si moom fa tabaraka allah sunu xaaliqina wallahi mu ngi ci moom waaw ah, li may wax nii moom critères yi moom mu ngi ci moom moom tabaraka allah sunu xaaliqina joxuma lu tax mooy wax lu xam ne xamuma ko ci moom waaye tabaaraka laa sunu xaaliqi na eh, nit ku baax la nit ku am njariñ la loolu rek la ñu bëggee baax ak njariñ rek bàyyi ne na bàyyi ne na nit njariñ lañ koy bëggee ah, nit kenn du dee ñu lekk ko nit njariñ rek lañ koy bëggee kon am njariñ dafa baax danañu nettali na ci Sidna Cheikh Ahmad Tidiane Chérif moo ko nekk boo demee ci Jawaahirul Maani man fa xaaru na bi ko yónni yàlla Moussa ñaane yàlla ba mu suuf si wan na ko fa naa bi wa bi daaril ard yàlla wanu wanu alal wan na ko wanu alalam ji yàlla dafa taxaw ne yowuntu yàlla Moussa tax nga di ko ñaan yàlla mu lu tax nga di ko alal mu ne ko da nga koo bindut moo tax dafa nekkul sa jàmm moo tax dafa nekkul sa jàmm moo tax nga di ko def nii ko Moussa xoolal Xaaruuna ni mu bone dem ba ne yonent yàlla Moussa dafa xëmbal jigéen koo kay xam nga ne koo kay ñaan ko yàlla rek fi sës al mu ala ko waaye bi mu alako yàlla dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko kii su fekkoon ne yaa ko bind su nekkoon sa jàmm doo ko ñaan yàlla mu alako yàlla ne ko Moussa ne ko sama borom man yaa tax ma mer fa yàq sa diine ji rek yaa tax ma mer kon gis nga mu ngi noonu kon nit dafay am njariñ waaw nit société bi boo ci nekkee da nga am njariñ ci société bi koo mën a dimbale na ko dimbale koo mën a dimbale na nga ko dimbale koo mën a dimbale na ko bàyyi boppam waaye koo mën a yàqal yàqal koo mën a yàqal yàqal koo mën a yàqal yàqal ah bés nga ñëw boo xam ne da nga ko wax ak ku la ko laajut da ko wax ak ku la ko laajut bés dina ñëw boo xam ne da nga ko wax ak ku kon nañ fexee di rafetal suñ jikko yi rafetal suñ nekki nii mu ne nag bàyyi mu ne nag soo amee sëriñ bu mel noonu nag jox ko sa bopp jox ko sa bopp tabbul bul bul wax naa nii laa bëggee nii laa bëggee nii laa bëggee ndax ndax mu ne da nekkal comme néew néew buñ koy sang du wax ne néew du wax ne nañ ma sangee nii nañ ma defee nii nañ ma wëlbati nañ ma defee nii moom dañu sang rek kon boo amee sëriñ bu mat sëriñ bàyyee ko sa bopp soo ko bàyyeewu sa bopp di dox ci calcul di dox ci calcul daga daal ndax mondu marabu mondu sëriñ amul calcul boo fa duggee ci calcul daga daanu bu calcul dégg nga booy xool tamit ba chéréetu cheikh bi ba ba chéréetu cheikh bi mooy ah sama nijaay la rek kii sama papa la rek kii sama mag la rek kii sama jëkkër la doo jariñu bàyyi mu ne ah jabar ak doom moom ñoom moom pour ñu jariñu moom lu jafe-jafe-jafe la ndax kii dafay gis ne sama bàyyi la kii di gis ne sama doom sama sama sama sama borom kër rek la kon loolu ñu ba xel jigéen ñu ba xel loolu waaw ba xel loolu bu baax dégg kon dañuy wax ne lu Fall Baye moo ko nettali Mouhamadul Hafiz Mouhamadul Hafiz bi nga xam ne moo tax wirdu tijaan wi ñëw fii bàyyi mu ne dafa am taalibe bu mu ko toppoon ñu dem ba mu yàgg taalibe bi ne ne sëriñ bi du taalib du sëriñ ne Mouhamadul Hafiz du sëriñ parce que gis na ci moom loo xam ne gis na ci moom loo xam ne moom d'accord ak moom mu ne kii du sëriñ bàyyi ne mu ne Mouhamadul Hafiz ne yàlla na mut ci moom njariñ waaye ma waaye Mouhamadul Fall mii su gisoon ci man luñ gën a sib du ma bàyyi ndax xam na mooy kan moolu faal waaw yéeme la bàyyi bàyyi bàyyi mbiram luy mbiram luy yéeme yéeme la yàlla yaataas si barkeem waaw yàlla yaataas si barkeem moolu faal xam nga sëriñe mooy Mouhamadul Xaafis jëm Makka di ñaan yàlla dajee ku ko jariñ ñu wax toog fa muy toog di wirdo moo tax toog ñun taalibe yi sama dob bi bi ma déyee sama dob bi biig dob bi bi ma ko jàngee sama am xawee bi jaru ko yow woote ool yàlla rek ool yàlla rek mu ngi gis ool yàlla rek waaye ñun noonu la ñuy def sama dob bi biig bi ma koy jàngi trois heures du matin eh, biig deux heures ma sonné biig naa am na koo koy wax yàlla ngay laaj laajal yàlla rek looy waxee loolu dégg nga waaye Mamadou Haafis fi mu toog lan na ko yow sa sëriñ mooy Cheikh sa sëriñ mooy Cheikh Tidiane te moom xamul bopp moom xamul ko Cheikh Tidiane loolu lu yéeme yéeme la waaw sa sëriñ mooy Cheikhou Tidiane te loolu dal na ma Alaaji Abdoulaye dégg nga waaye gannaaw bu mu jàppee ci Cheikhou Tidiane ba ba muy ñibbi Cheikhou Tidiane am fa Cheikhou Tidiane ñaari at ak genn wàll wala ñetti at si na ma Ahmad Tidiane def na ko boo demee nag bul feeñal dara fekk yàlla feeñalu la kon sëriñ Sango yoonu taalibe yaa ngi noonu jël nga jéem a feeñal dara bu la yàlla feeñal la rek nga feeñ wa ida adharaka allahu la budda min alzuhuri wa ida axfaaka allahu la budda min alxafaay wa man arada xaqan an wa man arada man laa yuri illa ma arada allah fa huwa abdoulahi xaqan waaye boo fi buggee feeñ rek bàyyi mu ne nga nekk jaamal feeñ boo fi buggee nëbb te nekk nekk jaamal nëbb da ngay nekk jaami yàlla xaqan waaye moolul faal moom li tax may wax moolul faal moomu gannaaw nag gannaaw ba mu ñibsee Mauritanie moom Mamadou Hafiz gannaaw ba mu ñibsee Mauritanie ba toog di jàngale benn waaye ñëw ci moom rek ne ko jox ma li nga jegee Fass jox ma li nga jëlee Fass mu ne ko man jëlewu ma Fass lu ma ay téere téere yaa ngi ne boo benn bis mu ne ko jox ma bii du Tijaan laa wax bàyyi mu ne moo xam ne kon jëfee feeñ na te Cheikh Tijaan dafa boo demee bul jëmee feeñal dara nekkal ci li nga war a gis nga gannaawam kii ba génnu àdduna mul faltim jugee Mauritanie dem dem Maroc ba muy àggat Maroc si na Cheikh Ahmad Tidiane dénkaane ne am na ku fiy ñëw nii la mel nii mel nii la mel bu ñëwee du ma fekk waaye na ngeen ko jox sama setala ak sama sajaada su ñu gën a xam loolu daa man ngeen ko jox sama kurut sama se sama sajaadeem ak sama sedda rek moo barkeeloo ko ba Mamadou Fall ñëwee ak Mauritanie ni mu soreeg Maroc ak jarmano boobu moyen de transport ni mu jafee waaye ba mu àggee bañ ko xoolee xool ko xool ko ba xam ne kii la Sina Cheikh doon wax ñu jox ko dénkaane ba waaye nag mu bëgg a jëriñu mu ne léegi nag gannaaw fekk fu Cheikh Ahmad Tidiane dafay laaj mu bëgg nag ñu jox ko ci gars yi jox ko ci mbóot yi doomi Ali Harazim yaakaar na Abu Yazar xaw ma ne ne ko ah yow nag loolu indiwulu feewoon yow li la indiwoon mooy gis cheikh soo buggee ñu jox la yenn yi da nga ñibbi Mauritanie loolu tax naa jóg mu demaat mu mu ñibbi Mauritanie delluwaat Fass moo tax moom Fall dem nañu Fass ñaar yoon bàyyi mu ne nag dafa am teggin mooy lool maanaam cheikh bi dafa am teggin ba nga xam ne waaye asaral tarikat yi mbuuti tarikat yi moom Mamadou Mamadou Mawlud Fall moo ko jëlee Mauritanie moo ko jëlee euh, Fass indi ko Mauritanie waaye kenn xamu ko kenn xamu ko ci moom kenn xamu ne moom moo ko fi indi loolu mooy lan teggin sa diggante ak sa sëriñ waaye boo bindee discours bi ne maa ko bind boo dindee discours bu neexee bu ñuy waxtaan nga naan maa ko bind ke rek loolu baaxul da nga am yar ak teggin sa kanam sa sëriñ kon sëriñ bu mel nii na ko jox boppam comme ni na ko Mawlana Cheikh Ibrahima waxee parce que yoon lu xam ne yoonu suuf yaa du yoonu du yoonu jaaxaan de bu doon yoonu jaaxaan doo fekk mag ñi mukk ci àdduna doo ci fekke mag ñi mukk waaw bu doon yoonu caaxaan doo ci fekke mag ñi mukk ànd ak nag lépp baax na waaw lépp baax na kenn ku nekk rek ak sa yoon kenn ku nekk ak sa yoon kenn ku nekk ak sa yoon waaye bu ko defee na ñun ñu bàyyi ci suñu yoon wi yoonu mag ñu téye ko yàlla ñu ci yàlla saxal bi jaahi rasulillahi sallam ndax yoon bu bëri danger la bëri ay dëkk taalibe nag saa yoo xamee ne dajee nag sëriñ bi na salbul irada di jàng ngañ ko bu lu bëree bëree ci lettre bàyyi bul jéem a tànn dara bul jéem a bëgg dara ànd nag sëriñ bi rek ànd ngir yàlla te di ko nemmeeku nag waxtu bu nekk di ko nemmeeku waa di nemmeeku sëriñ bi sëriñ bi lu mu nekk nga xam ko waa di nemmeeku sëriñ wala balaa loolu sax sëriñ bi tam nag moom tamit war naa nekk sëriñ boo xam ne dafa am itte itte lan itte ju kawe ci bàyyee taale bi la ñuy yore li ñu yore ndang leen ko bàyyee Cheikh Mate Cheikh Chérif wax na ci lu bari buñ ko jéem a ut ko jéem bëgg lañ yore buñ ko bëgg bi raf di wa raf di duniyaaw ba leen ba wërsëg yi ñu yore ku la jox nag jëlal ku la jox nag jëlal waaye bul imposé kenn dara lu may moo xam ne nag moom moo moo ko warul boppam ko ko warul boppam nag ah kooku nag kooku ñu jëm ñu jëm ko ñu dañ ci ànd ak moom bu ko defee taalibe bi war naa mën a góorgóorlu daa iman di xit di xitmal te bëgg sëriñ bi di nemmeeku sëriñam ci zahir ak ci baatin te di ko ziyaare te di ko ñaanal yàlla dégg nga tey wattu xolab sëriñ bi na koy wattu bu baax bu sëriñ bu mu merloo sëriñ bi nay wattu sëriñ bi ci boppam na wattu sëriñ bi ci njabootam gi ci ay doomam ak jabaram ak lépp loo xam ne maslaa am na na ko ci na ko ci wattu bu ko defut Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif ne na képp ko xam ne loolu ngi yoon da defoo loolu ba pare topp yoon woo topp yoon woo xam ne yoon bu sëriñ bi tëralee nga ne lu tax mu wax lii bu waxee lii nga ne lu tax mu wax lii bu waxee lii nga ne lu tax mu wax lii mu ne Cheikh Ahmad Tidiane mu ne képp koo xam ne da def loolu loolu mooy sa yoon mu ne yàlla daal dàq ci payam ba kon nag boo gisee ci sa sëriñ loo xam ne xamoo ko mu ne na nga ko taawil juróom-ñaar fukki taawil soo ko xamee baax na soo ko xamul nga nga tuumaal sa bopp xam ne yaa xamul yaa xamul bu ko defee ni nga ni mu waxee tamit ngay nemmeeku sëriñ bi mooy li ñuy wax ne kenn xara xam ndax bi mu xoolee yonent bi gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam xiif lool ak yonent bi ni ñemee xiif ni yonent bi ñemee xiif waaye mu xool ko bokk xam ne kii dafa xiif mu daal di ñëw wax jabaram ne ko yonent bi xiif na de xiif na trop ndax daraan fi ci kër gi mu ne ko waaw mu ne ko am naa fi tuuti dugub de wala tuuti sungub mu ne ko xaaral ma dem rey suma béy bu ndaw bee dégg nga bu ñu paree évité ko mu ñëw moo ay quelque ay ay yenn ci ba mu toggee ba mu ñor jabar na ko boo demee boo koy oo na xam noo koy ooyee de waaye yonent bi xam nga moom yonent bi ndigal moom mu koy jëlee ci yàlla moom kenn du ko digal mu ñëw ne yonent bi sallallaahu ndax jigéen lim gën a bañ jigéen ju baax laa wax de lim gën a bañ mooy teglu tuuti teglu tuuti jigéen ju baax bëgg ko da bëgg boo tegee ñëpp kontaan loolu la jigéen ju baax di bëgg nañ ci tax loolu mooy ne am njëriñ boo ëllëgee sa doom yi fu dañ fa mën a fu ñu dem duñu xiif waaw bu fekkee ne ñi nga amee duñu xiif bu ëllëgee say doom fu ñu dem duñu xiif waaye yonent bi Jaabir dem ne ne yonent bi daal na ko ah am na lu pare ca kër ga de ñu la ko doon pare parel pour nga ñëw kii ko yonent bi ne dikk leen Jaabir oote na dikk leen Jaabir oote na junney nit ñëw nañu añi ci benn bay wu ndaw jun junney nit ci benn bay wu ndaw ba ñu agsee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen mbaa teggeegu leen ko teggeegu leen ko ci furno bi mu ne déedéet yonent bi daal dañoo jàngalam jàngalam cay jàng jàngale may jàng ba pare daal bismillah di dugal pour fukki nit di leen soosal di tibb ci ñeex mi def ci fëriñ bi ci ci ay ñànkatan ñuy lekk pour fukki nit pour fukki nit pour fukki ba mbooloo mi yëpp jeex yëf yaa ngay bëx bëxi rek yëf yaa ngay bëx bëxi xaju yonent ren nag atam at mu jafe la day leen dundale at mu jafe la dee leen dundale kon yëf yaa ngi noonu de bu at mi jafee dee leen saraxe deel saraxe te bu ci gis sa bopp deel joxe te bu ci gis sa bopp defalal baax a baax a baax a baax joxe ko te boo koy joxe sax ñu ne ah waaw lii moom kanaa dafa dof wala boo ko joxee wàcc sax mu ne kii dafa dof kanaa kon noonu taalibe noonu la war a di baqel sëriñ bi léeg-léeg booy xaar sëriñ bi eh, eh, laaj la du sotti léeg-léeg da ngay toog ne ko jëru sa ngaan ko sa numéro am na wér sa réew am lu wér sax jaru nga koy wax sa orange mën naa dox ak yooyu yëpp jaru mbokk suñ benn mbokk waa ji daf koo dig waaw bu xakim la ah, mu toog toog xaar xaar xaar xaar dara mu okk mu ne ko kanaa yow naan orange de orange doo koy naan de kanaa mu ne woy woy woy woy woy woy sa orange man bi fàttewuma ko de fàttewuma ko waaw fàttewuma <laughs> waaw kon sëriñ boo ko amee léegi léeg dee ko wéef dee ko wéef nit njariñ lañ koy bëggee dee ko wéef dee ko orange mu ne wallahi léegi-léeg nga defar lu am am am solo ñoo jox ko te kenn du ko yëg magi Mouhamadul Amin mii sëñ Moustapha Ndaw moo ma ko nettali benn sëriñ ci Casamance xaw ma dafee da laa loolu lañ ko dama ko daan dafa dekk ci jamono yooyu jamono yooyu nga xam ne jamono xiif loolu léegi xiif amatul sëriñ bi mook taalibe bi bi sëriñ bi taalibe bi saa yu su su su demee ci comme jamono bii ñu toll jamono bii bu ci kanamatul lay ñambi xàll daam ñambi xàll ñambi xàll xamu leen ko ñambi ñun taalibe yi ñoo ko xam waaw man xam naa ñambi xàll sëriñ bi xam na ñambi xàll waaye yéen ñun du ngeen xam ñaam yéen ñamb ak carotte ak carotte ngeen di xam amutoon bu njëkk ñambi rek ah benn bés na mu ne man daal dinaa seet daal kii daal ki fi indi li daal kan la mu julli bu ñu jullee timis ba pare rek mu ne taalibe yi bisimilah wéyal leen wasifa leen dem ci nekk bi toog daal di daal di ñëw rek ci lampam bi rek bañ lamp bi ba mu ba muy waaj jeex gi toog toogum dugg affaire bi dugg ñambi ji bi mu wanee gannaaw rek gisul sëriñ bi bi mu wanee gannaaw rek sëriñ ko daa ji bu bët seet na gars yi ñëw di ziare di ziare dem di ziare dem di ziare sëriñ dañ koy ziare di ziare dem mu yàgg rek bi waa ji ñëwee rek ba mu ko wanee gannaaw rek mu ne ah. kaay ah yow yaa doon indi ñambi ji fii ma ne ko waaw mu ne ko lu tax moo ne ko sëriñ man damay gis ngay xiif rek ma naa ne ko indi damay gis ngay xiif rek sëriñ bi ne ko baax na baax na ku nangu nangu ma mamu de papay sëriñ bi nee na sëriñam nee na ko ne na ko njaay moytul ma waa Dakar yi si sur waa Dakar yi ne mooy sottil ma bii du sottil dara sottil ma bii du sottil dara yëf yi boo ci bëggee jëriñu da nga ci def dara boo bëggee jariñu da def dara waaye naxante rek doo am dara doo am dara lu may a yàlla gi sëriñ bi daal di koy jox tur yàlla mu dem dem di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey ba mu yàgg ñu jox ko ñu may ko jabar xam nga taalibe moom taalibe njëlbéen taalibe du neex njëlbéen taalibe duy neex mag ñi dañoo wax ne njëlbéen taalibe ak mujj commerce ñooy am mujj commerce ah yàlla yàlla mi ngi jégalu ci commerçant yi rek kama sax loo mu yàgg-yàgg da nga daanu lu mu yàgg-yàgg da nga daanu bi nasil quran maa indakum yan faddu maa inda laahi baatil taalibi tamit lu mu ko nayem sëyal sëyal sëyal commencement du neex lu sa yaay sëy sëy sëy sëy sëy mënoo tëdd mu neex fokk nga jaar ci fokk nga jaar ci coono kon taalibe yi ñu xam taalibe ko jigéen ñi ñu xam loolu bu baax waaye sëriñ bi nag moom ñu jox ko tur yàlla muy liggéey di liggéey ñu may ko jabar joo xam ne lu tànneef sax gannaaw gannaaw yore woo dara gannaaw yoroo dara gars yi ki ñuy may jabar léegi mooy ndax am na kër ñu ne waaw mu ngi dëkk fii ci Almadi dëkk Almadi la dëkk ko nañ ko may jabar waaye dana dem Singapour sax moom fan yële jógee Singapour ah fan yi la demoon kooku la ñu óolu xam ne amewul dara dara dara dara dara lu may yàlla kese kenn du ko jabar te fekk waajaa ngóob nag waajaa ngóob waajaa ngóob waaw waajaa ngor de ndax yonent bi li mu wax mooy bu leen ñëwalee koo xam ne am na jikko bu rafet may leen ko ku am jikko bu rafet bo ngeen di maye may leen ko waaye ay taar ah taar baax na baax na de waaye nag boo loo taaru taaru taaru taaru boo guddee fan da nga war xaw ma lii la waaye nag taar moom baax na moom ah de baax na di taar baax de taar baax na trop ah, taar baax na trop dafay yombal wërsëg kon ci gàttal ndax sëriñ bi la ñuy déglu sëriñ bi la ñuy xaar lañ bëgg a wax ci wax ji du jeex mukk boo ko bëggee topp doo fi jógee waaye daal li ma xam daal mooy nañu góob waaw ma ne ma agréé ko sa waajoo sëriñ boobu noonu. gannaaw gi bi mu del seeta ci sëriñ bi ne ko sëriñ sonn naa de jox ma turu yàlla. sëriñ sonn na jox ma turu yàlla waaye xam nga turu yàlla fa gàddu xeet turu yàlla moom fa gàddu xeet de seet ñiy jéem a sikkar moo leen di moo tax sikkar du yomb ah mu bindaan kay rek jox ko mu ne ko mu xool ah, demal rek demal rek waaye gannaaw gi nee na sëñ Moustapha ne na ma ñu koy defar ay ziyaare ak gàmmoo foofu ca dëkkam ba kon mbir yi njëlbeen gu du neex njëlbeen gi foog mu métti foog da ngay jënd nag boo jëndee da nga am taalibe nag su bëggee ji jëriñu ni muy xitmaa nii bàyyi mu ne day ko joxee addiya booy joxee da am booy joxe li ngay joxe da nga koy am loo joxee rek daf lay yomb kon yàlla yàlla barkeel ziyaara bi yàlla yàlla barkeel ziyaara bi yàlla yàlla barkeel ziyaara bi képp ku fi ñëw aajo boobu fi mën di yàq bokk nekku ci nekku ci sax amul jox sax yàlla yàlla faj sa aajo fu waaye jógee yàlla nga dellu ci jàmm dellu ak yokk ci zaahir ak ci baatin yàlla mën na ko yow mën na ko yàlla yàlla def loolu jamaa bi yàlla na ko yàlla barkeel yàlla ko yàlla yokk ci daraja yonent bi la fan la bàyyi waxoon ci alaaji Abdoulaye ne ko bu guddee fan dana baax ci ñun waaye yow tamit boo guddee fan dana baax ci nit ñi da nga baax ci réew mi da nga baax ci taalibe da nga baax ci soppe da nga baax ci ñëpp tabaaraka laa sunu xaaliqina yàlla na yàlla may la fan wu gudd taxaw nga ci réew mi loo xam ne taxaw nga ci réew mi noo xam ne ku la jegewut ñi la jege yëpp xam nañ ko li nga def ci réew mi moom moom bu ñu doon fay dañ laa war a fay wallahi ba kenn ñemewut a gars yi moom la jóg ànd ak ñoom ba kenn ñemewut a jóg waaw ba kenn ñemewut a jóg la jóg ànd ak gars yi keroog bañ escorté waaja xam ne kenn mënut a dugg kenn ñemewut a moom moo am fitam moo am fitam parce que xam ne li muy dox dëgg la moo am fitam dem dem seeti waaja moo am fitam dem seeti waaji dem seeti comme nu mu waaji nu tudd président um, euh, kii ministre Seck su am premier ministre son Sonko hmm? kon kooku te loolu mooy li gën a tuuti lim ko defal ci ay dog ak lim ko defal ci ay ñaan yàlla loo xam ne moom rus na koo tudd rus na koo tudd kon waaye nag yow yàlla nga doon defal rek defoo pour waaji jox la dara dégg nga defoo pour yaay kenn jox la dara ndax bërki bu rek Euh, ministre bi ko seet si fii bi ko taale bi wax ne ko sëriñ bi waxoon na ay doléance am mu ne leen déedéet déedéet déedéet buñ ko wax benn doléance ñun luñ lépp luñ soxla dañ ko ut ci yàlla sëriñ bi loolu loolu mooy mbir loolu mooy mbir yàlla na yàlla taxawu zaahir noo baatinan képp ku fi ñëw soxla jëkkër yàlla la yàlla may jëkkër ku fi soxla jabar la ko yàlla may ku fi soxla doom ju baax yàlla na ko yàlla may ku doomam tukki mu jaaxle ci moom yàlla ko yàlla tegg yàlla na yàlla faj aajoom ku fi am ku ràgg yàlla na yàlla faj aajoom réew mi yàlla fi yàlla dolli jàmm doole fi sutura doole fi taraanga doole fi naataanga yàlla mën na ko yomb na ko yàlla ñu ko yàlla defal yokkal ñu sëñ aaxe bu yàlla yàlla yokk barke euh, karamam leer doole barkel gannaawam bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam saxal ñu ci yoonu Mawlana Cheikh Ibrahima tëbbu ñu ci yoonam tëbbu ñu ci barkeem mën na ko yomb na ko yàlla ñu yàlla defal ñu loolu may ñu nawet ak barke may ñu ngóobe bi rafet bokk ci ñay muuro bokk ci ñamey sant bokk ci ñay sant ak ñamey dolli dolli gu xotti baax yàlla mën na ko yóbbu na ko yàlla ñu ko yàlla defal innahu wali dalik wal xaadir wala allahuma salli ala sayidina muhammad wa sallim muhammadin salatullah thumma salamu fa baraham jiddun aashiqun fika